وما علمناه السعر أك, أك, أك خضر أك خضر خضر أك موسى أك وما علمناه السعر xam سم سم nga ni sump sàngi du bàkkaar du bàkkaar wante sump nga ni detax jàngi bàkkaar la ndax du moom te qalbul xaqiqa baaxul nanguwu moo tax mu bañ wa ma allamnaahu sha'r lu ne nga tudde ko la mu doon moom la alquran def waaw moo buñ ma nee diw nee na mi ngi lay nuyu ma ni mooy kan ñu ne mooy dofu xalifa ma ni su ngeen demee ni ko mooy nitu xalifa waaw mm-hmm. ndax bëri ci xaqiqa la dellu bële ci sha'r la dellu waaw mm-hmm. diw neena na mooy dofu xalifa ma ne su ngeen demee ni ko mooy nitu xalifa waaw ndax dofu xalifa ci chaar la dellu waaye nitu xalifa ci xaqiqa la dellu waaw waaw wa ma allamnahu chaar wa ma yambagi lahu ay eh